yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi ñu ngi sant yàlla bu baax sunu borom subhaanahu wa taala fekk gi ñu fekke waat ren nii ci bismillaahi rahmaani rahiim ba àgg ci fan yu mujj yi nii di ñaan sunu borom subhaanahu wa ñu yàgg koo taxawee ñu koy sant bu baax di ko gërëm ci fekke gi ñu ko fekkewaat taaw buñ tey fii ñaanoon nañ ko fekkewaat ko mu may ñu fekkewaat ko ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanaat ñu fekkewaat ko ay at yu bare bare bare di sant bu baax a baax a baax ci taxawaay yi nga xam ne mbokk taalibe yi am nañ ko ci sànq ci yoor yoor rek maa ngi waxtaan ak sëñ Ahmadou Rafa Mbacké mi nga xam ne ci làmmiñ laa ko njëkk a déggee ñuy ñuy waxtaan ci tàmbali ba tàmbali ba néewoon na lool waaye wax dëgg yàlla fi ñu toll ni ñi ngi sant yàlla bu baax donc yëpp jàpp nañ ci ñi ngi sant mboolem opérateur économique yi nekk ci dëkk bi rawatina euh, borom boulangerie yi sëñ Mor Diop mi ngi nii ci sama wet ci mag ñi nekkoon sosoon ci liggéey ba ci boulangerie yi la bokk di sant sunu mbokki opérateur économique yi nekk Dakar ku mel ne Alaaji Pape Fall ak eh, sëñ Moustapha Fall ak Alaaji njóogu Fall ñoom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax at mu jot dinañ jëndi seen barkeelu te mësuñoo daltu ginnaaw di sant itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi kenn mu leen a lim waaye ñoom ñëpp seen liggéey rafetlu nañ ko bu baax a baax di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa moo yokk ko barkeel ndax liggéey la boo xam ne wax dëgg yàlla am na solo lool rafetlu nañ ko lool. sàng ci yoor moo toogee sëñ maa ngi ko wax ne kaddu ga nga xam ne moom laa ko déggee woon de ci sa ci sa jóge ci sa làmma gi sama nopp danga maa waxoon ne ma dañoo seetlu ne dëkk yi lislaam bi ci senegal yëpp yi ci yi ci àddina yëpp saa bu weeru koor ñëwee du nuroog weer wa ko jiitu woon wala weer wa ca wa topp ca moom ñu seetlu ne Touba gii moom weeru koor bu ñëwee duñ ko xàmmeeg weer wa wa ko duñ xam duñ ko xàmmeeg weer wa topp ca moom ñu bëggoon loolu soppiku ba bu weer koor ñëwatee ñu xàmmee ko ak weer ba jiitu ba ko jiitu ak wi topp ci moom alhamdulilahi rabbil alamin fii ñu toll nii wax dëgg yàlla xàmmee nañ ko bu baax a baax law na ba dem ci dëkk yi Sénégal yëpp daanaka Sénégal léegi foo dem bu ndogu jotee da nga gis ay nit ñu joxe ndogu te daanaka lii moo ko waral kon boog ñu ngi sont yàlla bu baax di sant ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi dañu am si ñun ak wóolute ba bu ñu leen laajee ñu ñu joxe ko di sant itam ñi nga xam ne ñoo koy saytu muy daayira mu xadamul xidma ndax li gënoon na doon sunu njàqare bañ koy sos mooy nuñ koy saytoo waaye saytu bi egg na foo xam ne kawe na sunu njort ñu joxe ñëpp kenn ku ne bind nañ saw tur bind la nga joxe bind ko ko indi bind beetar jox la ko bu wane ne jot liggéey bi agsi na loolu nag lu nu dimbali lool lool lool la ci ñi ñuy laaj ba ñu xam fiñ koy def kon ñu ngi dolli di sant yàlla bu baax di ñaan yàlla mu sàmmal nu ko ba mu gën a law ba àgg ci yeneen yitte yoo xam ne soxlañ ko ci dëkk bi ndax lépp ci dëkk bi lépp ci sëñ bi la jëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci ci yonent bi di sant Serigne Touba di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér moo ak rakkam ak doomam ak sëtam ak taalibe yi yëpp ah ñu ngi sant tam mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci ci liggéey bi moo xam lu waaye man di yëngu te bokk ci. moo xam ci commerce nga yor wala nga yor nga yor station wala nga yor épicerie wala ngay mécanicien wala ngay loo mën di dëggee wala ngay maçon wala loo mën def rek ku ci defan sa loxo rek ñu ngi ñu ngi ñu ngi lay ñu ngi leen di sant bu baax te di leen di jaajëfal te te di di gën a doole soññ di soññ suñu bopp. ndigal loo xam ne ci sëñ Saliou lañ ko jël woon depuis 2005 ah, yàlla dañ ci suturaal waxtu bu ne fam tàmbalee woon ah, yaakaar naa koy xool ak léegi. boo ko doon xool ci pourcentage du du neex a wax ndax loo xam bañ koy soog a tàmbali million bi dajale woon manqué woon na te fi ne yaakaar naa ni àgg nañ ci quatre-vingts millions yu tegal ah, te loolu yëpp nag day waree ni mbirum Sëñ moom toujours day gën a jëm kanam te mbirum Sëñ nekk na mbir moo xam ne li ñuy wax bërigo ci mbartal la ku ci teg sa loxo mu dem ku ci tegul sa loxo mu dem mu dem kon nag teg ci sa loxo mu yóbbaale la ah dafay doon loo xam ne lu lu dal xel la waaw maa ngi daal maa ngi gën a soññ mboolem mépp daal di leen gën a sant ah di sant nag ci turu Baye Mouhamadou Diop euh, société Daaru Salaam Diop frère ak El Hadj Kab ñoom ñi nga xam ñooy mag ñi ko jiite fii di santaale ñi itam ku mel ni sëriñ Mboup. alaaji sa sëriñ Seck euh, alaaji Moustapha Dia Mbay Sarr Sénégal Tour Pape amee boutique alaaji Ba Baara gay ak ñeneen ñeneen ñoo ñu bari daanaka ku lim sax juum ñoo xam ne mosuñ ñoo yokkat bañ ko tàmbalee ba fi mu ne la def waxtu bu ne dañuy dañuy gën a yokk seen loxo ah loolu tam ñu ngi ñaan tam ku ko mën tam ngay ngay def noonu noonu noonu noonu ñu leen santal di sant mbooloo mi yëpp. ci béywuñ kenn jàpp ci lool te jàmbaar ci muy waa assis yi sëñ Fallou Xuma mi jiite ko ak ñim àndal ñëpp a ah wax dëgg yàlla ñoom it jàpp nañ ci bu baax a baax di sant ku mel ni sëñ Modou Abdoulaye Cissé ak seex Dieng ak sëñ sëñ Modou Ndiaye ñoom ci gaar mu ndaw jàkkati gerte yi ñoom it wax dëgg yàlla jàpp nañ ci jàpp bu baax a baax a baax a baax ah ñu ngi leen di sant ñëpp daal di sant waa waa daral yeeg ak ak marché yëpp ci njiital sëñ Sine Dieng waaw ci ci turu délégué marché yëpp ñu leen sant ñoom ñëpp di ñaan yàlla ñu fi fekk ko déwén ak jàmm. yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi